sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa asxaabihi ajmaina amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu topp mbokk yi ñu topp ci DR Malo TV ak DR Malo officiel ak yeneen barab yi noo ngi del siwaat ci sun jotaay bii di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiqam ci jataay yi nga xam ne ci la borom bi tabaraka wa taala di woo ñi nga xam ne dañ koo gëm tey noo ngi toll ci jataayu fukkeel ak ñaar toll ci laaye ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk deux cent soixante-dix-huit sunu borom tabaraka wa taala nee na yaa ayuha alladina aamanu ttaqu ma baqiya min arriba in kuntum muminin nee na yaa ayuha alladina aamano yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla wadaru te ngeen teg fi suuf wadaru te ngeen bàyyi maa baqiya la des min riba ci riba in kuntum muminina su fekkee ne da ngeen a gëm yéen ñi gëm daal bàyyi leen riba kon loolu la laay ji jàngale kàddu yi gàtt na waaye njariñ la bari na bokk na ci njariñ la nag benn mooy daf leen a digal taqwa ci la tàmbale door leen a digal leneen ndax taqwa mooy fondation mbir ma mooy jubluwaayu mbir ma itam kon mooy bopp wépp yiw mooy ragal yàlla kon da leen di fàttali ne yéen ñi gëm kët da ngeen a war a ànd ak taqwa ñaareel ba mooy daal nit ki mën naa gëm ba noppi fekk ngëm gën ak matut kon ñi di ko digal mu ragal yàlla ndax ak ngëmam mat wujudu mutlaq al iman la yastalzimu istikmaala abwaabi taqwa loolu moo tax jullit bi nga xam ne dafa gëm yàlla mu aajowoo ñu naan ko ittaqillaha ragal yàlla waaye su doon ku gëm rek daal di mat sëkk kon ragal yàlla du fa xaw a am place ñetteel ba laay ji tere na riba ci mboolem ay xeetam riba nag dafa am yaari xeet benn xeet wi mooy ribal fadli riba boo xam ne dafa aju ci ëpp lente maanaam weccee ba pare ëpp ëpplente sharia lim jàngale mooy bu fekkee ne yi ñuy jëfandikoo di ko dañ koy tudd daa bokk ci yi ñu boo tudde ay riba wi yaat lu mel ne ceeb ak dugub ak xorom ak tàndarma nga xam ne dañ koy natt su ngeen koy jaayante di ko weccee barca barca rek ngeen saña def waaye kii mënta wax ne sama pep mi peppum suuna la kii ni peppum saaño la kii ne ko dama lay jox jenn àndaar mu ne kon ma jox la yaar déedéet barca barca rek àndaar àndaar ceeb ak ceeb ak bu mën a doon wecce rek ngeen mën a def saaku vingt cinq kilo mu jox ko saaku vingt cinq kilo amul ëppalente su ngeen ëppalente rek riba dugg na manees naa ëppalente nag ci yeneen yoo xam ne bokkul ci riba wiyaat yi maanaam bokkul ci yii ñi natt ak a peese ñaareelu xeetu riba mooy woo xam ne dafa aju ci ab délai ki nga xam ne danga ko lebal ne ko boo may fay dag may fay lu ëpp la ma la lebaloon loola riba la loolu nag système la boo xam ne banque yi jëfandikoo riba yépp seen liggéey ci loolu la tegu suñ la lebalee ñaar booy fay da ci teg dara ñeenteel ba أن المرابي إذا تاب وله أموال ربوية على غيره وجب عليه الكف عن أخذ الزيادة وذروا ما بقي من الربا loolu daf lay wax ne ki nga xam ne day jëfandikoo riba di lebal nit ña rek kum lebal benn nga fay ñaar di ko def ba mu yàgg mu xëy tuub fekk bor yépp fayoogu ko woon sharia nee na booy fayu fayul la nga leble woon rek waaye la des bàyyi ko fa loolu mooy wadaru bàyyi leen ma baqiya la des mina riba ci riba kon la ca dolliku woon ca la nga leble loola bàyyi ko fa bul ko laaj juróomeel ba moo di wadaroo ma baqi min riba am na meneen maanaam mun fay jëriñoo mooy lañuy tere ci riba ci yow mi tuub mooy lay ñëw na ci kanam waaye la weesu kat loola moom borom bi tabaraka wa taala da koy jéggale bu fekkee tuub ga rafet na ca laayay ribaaye waxan waxaale na fa ne fa man jaahu mawidatun min rabbihi fantaha fa lahu ma salaf koo xam ne waarek sa borom ñëw na nga waaru daldi di bàyyi riba nee na jéggal nañ la la weesu woon kon wadaru ma baqi min riba bàyyi leen riba ci lii ñëw ci kanam juróom-ñaareel ba laaye ji ak laaye ji ci sës danañ ci dégge gravité boo xam ne riba garaaw na ko ndax borom bi tabaraka wa taala kat ba mu waxee ne yaa ayuha alladina amanu ttaqu llaha wa daru ma baqi min arriba in kuntum muminin daf caateeg na fa in lam tafaalu fa'danu bi xarbin min allahi wa rasulih su fekkee defu leen loolu li ma wax sooy bu ngeen xam ne sooy bu ngeen déclaré ab le ab guerre boo xam ne ci yàllaa ko tam la joge maanaam yàllaa ko tam yonentam danañ leen xeex su fekkee ne nanguwu leen a bàyyi riba loolu nag lu rëy rëy la ndax borom bi tabaraka wa taala moom ku jaamaarloog moom ci xeex loola doyit nga boole ci ab yonentam jàpp naa ne ngañaay moom doo ko ci jële yàlla ñu yàlla musal ci guerre boo xam ne nit ka day ak yàllaa ko yonentam kon day ne li ñu war a mën a wax ci laay ji tey foofu la yem di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko di leen jox wala di leen dig ab daje ëllëg incha allahu ci waxtu wi wassalaamu aleykum wa wa barakaatu.